chaque bureau de vote, il te faut des représentants, représentant, et avec ouais. leurs et il te faut un plénipotentiaire, il faut que ñooñu ñëpp nga former leen wax leen nan la processus processus bi demee demee vote bi nangam sangam tel heure lay ubbi président bi nangam sangam bu nit ki duggee loolu yëpp formation la boo xamante ne dañ ko war a xam te il faut que nga xamal ko say nit n'est-ce pas il te faut une machine financière mm-hmm. parce que maître wax na ko léegi-léegi

dina nit ñi xam ba voter bu ni ñaari yoon mhm. les partis que je qualifierais de séculaires et encore que. je prends l'exemple du passé je suis désolé c'est pas un parti séculaire 2014 ah, maintenant ça fait 10 ans. Ouais. <laughs> Ça, fait à peine une décennie. mais a def processus. oui c'est un processus mais c'est un processus circonstancié. Oui, oui. mais le yàlla un indi ay mbiram c'est là où Charles je comprends les gars je suis totalement et je suis tout autant que toi. Euh, ma wax ko ci wolof euh, gis nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni nga ni mu la lu mu la ñore ñu yemale askan wi ci wàllu diine ak gëm-gëm et cetera walaay adim noonu la ma ñoree ndax dama am man tey ay fële ma fekk baax au début à Kër Massar fi ma déparé ci local yooyu mais dama am ay militants musulmans ay militants chrétiens bon les naa on ma c'est quand même ñi et pourquoi. <laughs> Hein? et pourquoi pas. non je sais pas J'ai dit Défena. J'ai je dis il a dit Défena. J'ai je dis Pourquoi pas mais Charles dès qu'il a dit Défena, ça passe. mais comme beaucoup ko amee non Charles dès qu'il dit Défena, ça passe. je suis désolé. mais moi, mais ça passe. moi quand même pourquoi pas avoir des animistes. non on est on est amis donc Charles. est-ce que vous n'en voulez pas. aussi oh, bien sûr eh ben, très bien. Un ça a élection politique addition point voilà merci merci. waaw léegi Amadou muy daaneel parce que il faut Amadou daaneel. mais fi muy daaneel mooy li doon wax. non non dafa nag dee ñuy xaar ba pare. ñi nag donc am na ñi nga xamante ne dañuy jël temps bi processus itératif. commencé dem élection locale. Mhm. def ben comme ni ñu ko un petit ci nos commune. Mhm. après nga a xaaral ma dem euh, si si commune département Kër après nga a xaaral ma région de Dakar bi ainsi de suite di didem. di dem. yow yaa gagné gagné defal je suis arrivé deuxième sur 16 candidats. non laa gagné ak pas deuxième. D'accord, vous, accord bu ma xaaral ñëwaat après. Grau. très rapidement euh, non c'est important parce que pédagogie yi dafa am solo aussi parce que nit ñi comprendre. ñeneen ñi mën a mën a mën a une heure de temps di déglu. waaw dégg ma rek s'il te plaît donc encore une fois affaire Bob non, c'est extrêmement important les gars vous faites qu'un yow temps boobu mon ko mon ko mon ko xaar mais on na beneen yoon bi fi am ni Amadou Ly nekkee euh, Kër Massar ñu xam ko ci diwanu Kër ça peut-être mu xaw tant am tànk aussi foot, peut-être également fille, ak fii et cetera par rapport ak liggéey bu mu commencé jottoy def mhm. mais non la amé keneen ku melni Amadou li ko mu ngi ci zone <coughs> élections locales. et boo les carte électorale la machine électorale dont je parle et la machine politique dont je parle nga dieu résultat une dans toutes les communes il y avait des profils indépendants yoo ni beaucoup mhm. ñii fille, beaucoup bokkuñu fait. pour le moment ouais pour le moment mais en attendant justement il demal nga approché